bésu gaaw fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-ñett ak juróom fukk ak juróom-benn test yi ñu def téeméer ak juróom-benn fukk ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci feebar bi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaari kaa importé mooy ñi nga xam ne ñu ngi jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu jaas juróom-ñeent fukk ak benn ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji baaye xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee Kër Massar am na ci juróom-ñett Saint-Louis am na ci juróom-ñett Dakar Plateau am na juróom-benn Liberté 5 am na juróom Ouakam am na ñeent Thiès am na ñeent Tivaouane am na ñeent Guédiawaye am ci ñett Mamel am ci ñett Mariste am na ci ñett mbaaw am na ci ñett tamba am na ci ñett Vélingara am ci ñett HLM am ñaar Kaolack am na ci ñaar Kolda am na ñaar medina am na ñaar Ñaari Tali am na ñaar sacré am na ñaar Sangalkam am na ñaar tuba am na ñaar Baobab am na ci benn Bignona am benn Cambérène am benn jëppal am benn jurbel am benn Fass am na benn Grand Yoff benn Kédougou benn Ouest Foire am na benn Oussouye am na benn Point euh, Point E am na benn Pout am na benn Rufisque am na benn Yëmbal am na benn ak Ziguinchor am na benn ñaar fukk ak ñaar si malade yi ñu entre woon hôpital am nañu tan dinañu génn bésu nit euh, bésu tey bu ci yàlla àndee juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu nga ci réanimation ñaari malaat ñoo ñàkk seen bakkan ci bësu démb ajjuma fukki fan ak ñeent ci weeru ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ci kaa bu njëkk ba senegal wàññi na fukki junni ak ñaar yu teg fanweer ak ñaari kaa ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji juróom-ñaari juróom junni ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wér nañu ci ñooñu amoon doomu jàngoro ji ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn ñàkk nañ seen bakkan mu des ñeent junni ak téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi. puis les résultats des examens virologiques ci-après sur 1886 tests réalisés 160 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 8,48 pour cent les cas positifs sont répartis comme suit 67 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 91 cas issus de la transmission communautaire répartis entre quartiers ou communes suivants. Keur Massar 8, Saint-Louis 8, Dakar Plateau Liberté cinq Wakam 4, Thiès 4, Tivaouane 4, Guédiawaye 3, Mamel 3, Les Maristes 3, Mbao 3, Tiva, euh, Tamba 3, Velengara 3, HLM 2, Kaulach Kolda deux Médina deux Ñaari Tali deux Sacré-Cœur deux Sangalkam deux Touba deux Baobab deux Bignona deux Cambérène un Dieuppeul un Diourbel 1 Kédougou 1 Mbour 1 Mermoz 1 Ngor 1 Ouest Foire 1 Oussouye Point E 1 Pout 1 Rufisque 1 Yeumbeul 1 Ziguinchor 22 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 57 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés ce vendredi 14 août 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour,